aywa beñe beñe gaangi aywa beñe beñe jaangi aywa beñe beñe gaangi ah man de jommi naa ci suba ba léegi mënu maa fexe fexe ba jaay ñaar dërëm Sénégal moom léegi moom lii moom jar na ti suñu bagage dem planète Mars wala planète Jupiter wala jaay ñetetu wala jaay keccax lii moom doxatul moom. ah yow de gën a gëj ci dal nga ma ci loo nekk loo bëggoon nga ne. mère waa man de dañ maa yónnoon bañ a quoi ma jaar fi ma ne xaaral si benn fii avant dem ah loolu la kay waaye yow yow am na ko mel du de yow nekkoo doomu Pape Matar bi ndóol ngeen trop ndóol ngeen trop trop waaw waaw Pape Matar sama papa la foo yow kooku ah waaw loolu kay la ma nekkee ki nga sa baay chaque jour maa ko jaay benn fii lay ñëw jënd fi benn bu bëri fii lay ndekkee fii lay añee fii lay reeree ndax nee sa yàlla mi togg neexul. donc fi lay ñëw ma defaral ko peñe mu lekk ba suur ah kon ne metti bañ war laa neex kon ah fekk sama papa nangu ndékki fii la ñëw ndékki see kon ne see bañ a ndar ndar naa neex léegi danga ma jaay eh, téeméer mu yóbbu ma xool waaw waaw gone gi gis nga bañ bi ko ñam di nga wëri ndax bañ bi lépp nga ci biir bañ bi am na jambon bañ bi am na fromage bañ bi am na suukar keccax géej gi bàyyi ma dara kanja saabu tooy bi lépp nga ci biir bañ a gi yaa seexul Ibrahima Baba Lamine Dias maire dem moom xawma lan de waaye sa benn dem bi moom doxut yu daal dem nag naka laa jëndee téeméer yi dem ba place war koo lekk benn bi dafa kere ja kere ja kere ja kere ah bon ay kon maa ngi jégalu xam naa kon ngelaw bi la xam naa kon bi may dang firiñ bi du ko dugal ci diwlin bi xam naa boobu la kon maa ngi jégalu de waaye tey moom bi ma la jaanee moom maa ngi wut dara saf na saf am na sax limon ah boobu moom doxul moom jaayaat ma 250 ma dem essayé waat ba xam. mère démb daal su ma la waxee li ma dal sa beñe bii ko gëm sa beñe bi daal nekk laa demee ba di ci ay doomu kaan yu wex xat yoo xam ne. billaay maa ngi jégalu xale bi xam naa ko démb xale yi ñoo ci def kaara gi te yëguma ko waaye bul wax dara tey moom boo ko jëndee moom doo ko rëcc maa la ko wax. maire yii maire li ma ëpp na moom lii dafa ëpp maire démb lu ma gis ci sa beñe bii li ma gis ci sa beñe bii nit ku ko gis nit ku ko gis laa wax de day dee sur le champ xëy mi ay meer démb lu ma gis ci sa beñe bii <laughs> doom waxoon naa la ko de bii moom boo ko moom boo ko lekkee moom tey bii sa xol dina sedd ndax lépp laa ci def carotte ak ñaambe ak tomate farci ak lu dugal naa ko ci beñe bi beñe bi neex na saf na saab yow daal demaat ak beñe bi dugg ci garage bi dàq ñëpp nag tëj buntu bi pour man kenn kese ma lekk ko naka daal laa teg beñe bi daal dem bay waaj a xàmp fekk fa dem du maami sax. gis nga yow xaaral ma jug wax ak yow gis nga yow boo ma waxaatee kese beñe bi sax ci nekk ma rof la ci mu teg xaj laa la wax yow léegi bu nekkoon ci beñe ak ndayra di nga doon dafa saxi na njëkk tey na mujj tey dem romb di muy wéy laal wax xale bu réew nga xale bu yabaate nga amoo yar amoo teggin mère mère kat pata baaraam ma ñëw mais dèjà yow bi ma la njëkkee gis rab laala la tegoon yow nee nga si bañ bi am na jambon am na keccax am na moutarde am na poobar kay kon kay sax mënu cee mën ñàkk nekkul ci benn ndaay bi nga doon dafa saqi sama yaay da jaay beñe beñe yi neex sax te day xëy sang ba sëb diw ba leer xëy na neex client yi ñëw waaye yow nag bokkoog moom ndax yow dèjà sa gémmiñ gi dafa maabu sa pax ba kenn demee côté sa afro bi xasaw na sa dox bi tilim na yu xadoo sangu ak sa xesal bu salte gis nga boo bëggee teem rafet teem bu nice nga xam naa yow fu nekk nii teem rafet ngay bëgg da ngay dem jël euh, ndox nga boole kook dayu xaj di ko diwoo.